إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وعدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أعلى كلمة الحق والدين وجعل الناس أئزة مكرومين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ginnaaw buñ tàmbalee ci tur yàlla subhaanahu wa taala ñoo ngi ñaanal suñ yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla doole xéewal ko musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi fas yéene fàttalante suñu biir benn thème boo xam ne ñun ñi koy fàttali ñun ñoo ko gën a aajowoo ñi koy fàttali fàttali bi nag mi ngi aju ci wàllu lalu dee doomu aadama ci lalu dee jàpp naa ne dee déggagu leen fenn ci parlement yi parlement bu ñu bu ñu voté ne dañ koy éliminer amatu ndax xam ngeen ne dee ci loxoy boroom asamaan ak suuf la nekk te nee na kenn ku nekk ci yéen dinga ko ñam kenn ku nekk ci yéen mi ngi lay xaar kon ci loolu lañ fas yéene incha allah def ñu fàttali ginnaaw ba ñu xamee ne ñun yàlla subhaanahu wa taala moo ñu bind ñu nekk ay jaamam te yàlla mu ngi bind ci suuf si mu wax ñu ne moom yàlla minha xalaqnaakum ci suuf si laa leen bind wa fiha nuidukum bu ngeen dee ci suuf si laa leen di dugal wa minha nuxrijukum ci suuf si laa leen di génne ginnaaw bu ngeen dee moom yàlla moomu subhaanahu wa taala bu wax ak jaam ñi mu wax ak jaam ñi xamal leen leeralal leen yee leen fàttali leen bu baax a baax a baax ne leen ndax da ngeen a yaakaar ne dama leen a bind rek ngeen ñëw ci kaw suuf pour foofu yàlla day laajte de dafa ne ndax da ngeen a yaakaar dama leen a bind yéen bindee fii ngeen ñëw ci suuf si rek pour foofu moom yàlla yemul ci loolu de mu daal ne jàkk ki nga xam ne mooy gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ne ko innaka la mayitun yow da ngay dee muhammad yàlla ne ko jàkk ne ko innaka la mayyitun kon moom xanaa bu fekkoon ne sax dañuy xalaat ne yàlla dina am kum fi bàyyi ñu ne ko xanaa muhammad lay nekk waaye yàlla ne jàkk muhammad ne ko yow da ngay dee ñoom ñii ngay waxal dañuy dee ñoom bi innaka la mayyitun wa innahum la mayyitun yow di nga dee ñoom ñii tamit ngay waxal danañ dee moom yàlla subhaanahu wa taala ginnaaw ba mu tëralee dee suñu kaw ba mu ñu bindee def ñu ay mbindeef teg suñu kaw dee nga xam ne doomu aadama yépp foog ñu dee moo xam ku mag la moo xam ku ndaw kenn du ne dee mag rek moo koy def subaa ngoon dañuy gis mag di dee xale di dee yemul ci loolu waaye xaniyuhum wa faqiruhum ñi am dañuy dee ñi ñàkk dañuy dee ñi ñàkk dañuy dee ñi am dañuy dee su benn waay waxoon man damaa am alal dee bu ñëwee damay jënd sama place duma dee ñi nga xam ne dañoo am alal ba yaakaar ne duñu dee ñoom la yàlla di waxal ci suratu humazatin yàlla mu ne allazi jamaa maalan wa addada waa joo xam ne dajale na alalam rek di jal benn bis jalla jalaaluhu ñëw jël ko ñu yóbbu ko jal ko ñëw tas jal bi mu jaleen jaale ko kon yàlla du fi bàyyi kenn xani yow ma faqiru ku am ak ku ñàkk ñëppay dee azizuhum wa zaliluhum ki tedd ak ki tedd di ñëppay dee ki tedd te nit ñi jàpp ne kii dafa tedd moo ngeeg lu lu dee gàññ lu dul jeex ak ki jàpp ne kii dafa torox amul dara benn mbubb la am yàlla mu ne ñëpp dañuy dee qawiyuhum wa daifihim ñi ci dëgër ak ñi ci néew doole ñëppay dee bu yeboo waa ji mu mën ci àdduna bi bu yeboo na nekk boxeur bi mën ci àdduna bi bu yeboo na nekk judoka bi mën ci àdduna bi bu yeboo na nekk mbërum làmb mi nga xam ne dañu ne ndiggam du laal suuf yàlla mu ne dina dee dinaa laalal ndiggali suuf man mbokk yi yàlla benn ndënd la yor da koo samp ci buntu këru gaa yi nga xam ne dañuy woote ne am na lu ñu mën te dinañ gis ci kanam yàlla fan la samp ndëndam dippi yàlla bi mu sampee ndënd moom ba léegi nag amul ku ko sampi ndënd mi foofu rek lay samp waaye yàlla yemul rek ci wax ne ñii ñooy dee waaye mu ne muaafihim wa maridihim ñi wér dañuy dee ñi feebar dañuy dee bu ñu wér bu ñu wér këng bu ñu yaakaar ne ñu feebar ñi ñooy dee gis nga loolu moo ñu dal tey ba suñ ne diw dee na nga dégg ñu ne xanaa dafa feebaram déedéet feebar yàlla utaru ko sabab fa kam min saxihin maata bi gayri illatin wa kam min saqimin aasa hiinan ila dahr ñaata yoon nga gis benn waay bu wér këng añ ba pare tëdd di sef ndekk fa lay continuer dem dee nga gis ku feebar téeméeri at ku feebar fukki at ñaar fukki at tëdd fee ñu koy seeti guddi bëccëg saa yooyu ñooy fekk fu mu taw kon feebar dee du feebar mooy sabab bi déedéet ah ñeneen a ngi ni ñoo xam ne tamit yàlla nee na dañuy dee góor gi ak jigéen góor day dee jigéen day dee góor day dee jigéen day dee kon nag bu góor ñi yaakaar ne rek ñoom dañuy dund duñ dee waaye tamit jigéen ñi buñ yaakaar ne rek ñoom ñooy dund duñ dee yàlla mu ne góor day dee jigéen day dee kon li ñëpp ñëpp wóor leen ne dee moom mu ngi suñ ginnaaw dina fëgg buntu kër yëpp dina fëgg buntu néeg yëpp kenn kuy noyyi rek dee dina lu nuyu moo xam dafa gaaw moo xam dafa yéex mu ngi ñëw yàlla mu ne yéen ñi daw dee dee mu ngi seen kanam ñi toog na ñun dañoo daw duñ ñeme yàlla mu ne dee est na seen kaw ay na maa takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi buruji musayyad même bu ngeen nekkoon ci ay kër yoo xam ne benn borom xam-xam mu tudd Cheikh Abdul Hamid Kisk day nettali ci benn kasetam bu tudd mawtu saa góor gi gaañu na génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm ci weeru koor gi mi ngi génn àdduna ci sujjóot ci sujjóot kooku yàlla na ko yàlla yërëm li mu liggéey islaam macha allah yàlla na ko yàlla fay mu ne benn borom benn buur a ngi nii bu def bu tuddoon saab iran waa ji nga xam ne li mu yàq ci àdduna kenn xamul nu mu toll ci ay ci ci ay jullit yi mu rey bi mu feebaree dafa tëdd ci lal bi ñu daal di koy yónnee docteur yi gën a mën a faj ci adduna bi ñu daal di ñëw di ko faj maa hôpital bi mu tëddoon ay policier ay gendarme ay marin ñoo ko doon garder am na benn docteur bu mag bu tudd Michael Jibiti mu ngi dëkk Amérique moom sax dañ kaa wax ki muy nettali mu ne waajaa ngi tëdd ci lal bi côté yi appareil yi segg deret a ngi fi côté yi appareil yi segg ndox côté yi appareil yi nga xam ne moo koy jox mu lekk yëpp ñu ngi ko branché ci yaram bi mu ne hôpital bi police yaa ngi ko wër bii ak biti waaye mu ne bi malakal mawti ñëwee kan moo ko kan kan moo ko jox ndigal pour mu dugg mu ne malakal mawti bi mu duggee ci hôpital bi kan moo ko jox barab pour mu dugg ci mbokk yi mu ne arsalal maliku malikan li yaaxasa ruuhul malik famanil malik buur bi dafa yónne malaaka pour mu jël si ruuxu buur bi kan mooy buur ah kon buur bu dee loolu ndeke buur kenn la mooy yàlla subhanahu wa taala mooy buur yi des ñëpp duñu ay buur ay baadoola lañ moo tax mu ne moo xam dafa gaaw moo tax mu dafa yéex dee moo ngi ñëw mbokk yi looloo tax islaam bëgg ñuy fàttali nit ñi loolu nga xam ne moo ngi ñëw ci seen kanam ñu leen koy fàttali balaa àdduna di leen këf balaa àdduna di leen fàttiloo loolu nga xam ne moo taxoon yàlla subhanahu wa taala bind leen indi leen fi ci kaw suuf yàlla xamal leen ne bu ñu sàggane am na mbir muy ñëw mooy dee bu ko kenn sàggane almawtu yaati baxdatan wal qabru sunduqul amal dee buy ñëw day betti nee na yàlla xamal doomu aadama yi ne bindu leen rek pour ñu sax ci àdduna àdduna daf leen fiy bind indi leen jamono ju ndaw dañ fiy jóge fan lañ jëm ñoo ngi jëm barzaq bu jógee barzaq fan lañ jëm ñu ngi jëm àllaaxira doomu adama day dund ñetti dund day dund adduna dund barzaq dund yowmal qiyaama suñ jógee si fan lañ jëm ñu ngi jëm barzaq suñ jógee barzaq fan lañ jëm ñu ngi jëm yowmal qiyaama loolu nag dafa laaj ñu ut tëri cëf dafa laaj ñu ut yóbbal xam ngeen yóbbal ah dafa laaj ñu ut yóbbal mbokk yi yóbbal dafa laaj nga ut sërije tukki boo xam ne yaa ngi dem te dootoo ñibbisi dafa laaj nga ut yóbbal lu baree baree baree bari suñu yóbbal nag lan la war a nekk ragal yàlla ñun ñëpp ñu fàttaliku bis bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala day ubbi buntu àjjana daan ne yéen waa àjjana xuluud fil janna sax leen dootu leen dee ubbi safara daan ne yéen waa safara yaa ahlan naar xuluud fi naar yéen waa safara sax leen dàkk ci safara dootu leen dee démb dafa am benn soxna bu doon dem màkk mu invité woon ma ci nganale gi comme niñ koy waxee ma dem biñ ñëwee toog saal bi ñu waxtaan ci wàllu islam maanaam ma koy wax sénégalais kay niñ toppee foo ba buñ ajee seen aj day yàqu am na jigéen ñoo xam ne bu ñëwee dañuy nuyu góor ñi di nuyu di nuyoo di nuyoo ba yegg ci man man ma ne salaamaaleykum wa rahmatullah benn femme mu ne ah yow doo joxe loxo ma ne ah dama joxe loxo ma nuyoo rek benn femme ne ah man de damay joxe man ma ne ko ah waaw yonent bi da moo doon wax te nag yonent bi moom yàlla moo ne maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa lu mu wax yàllaa ko wax ku mun a moytu nga moytu ko parce que yonent bi moo ne képp koo xam ne jox nga jigéen sa loxo yow mal xiyaam dinañ dagg ci jahannama daal lay tegal sa loxo xam ngeen ci biir mbooloo mi am na ku ma tontu xam nga lu ma wax sama loxo droite bi lakkee ma dese gauche ma xool ko te xool leen jahannama jahannama jahannama mbokk yi yeneen bi ne dañ ko ciy daggit benn daggit tegal ko ci loxo bi moom mi ngi xalaat bu sama loxo bi lakkee ma dafi gauche bi est-ce que daggit bu ndaw boobu dina fi bàyyi gauche bi loolu sax dafa sori suñu këriñ yi rek këriñ yi kenn ñemewul ngëpp benn benn fekkantaan bu ndaw kenn ñemewu ko ngëpp ci nga gis nit ñi fi ñu toll ci seen xol yu xamaat inna lillahi wa inna ilayhi yàlla wax nañ ci waar nit ñi kon balaa ñuy dee di dajeeg man jamono yoo xam ne rëcc dootul am njëriñ ndax dem ba àllaaxira di rëcc yàlla loolu lay bañ moo tax mu ne nañ waar doomu aadama yi wala ñuy dajeeg man di rëccu jamono ji nga xam ne koo gis rek li mbokk mi waxeen keroog dana ko yàlla fay xam nga waylu al waylu mooy lan xur ci safara waa Sénégal dañ koy woy ñoom Sénégal ñaari jooyi safara yi yëpp woy nañ ko woy nañu woy woy nañu woylu li yàlla wax waa jahannama bu ñuy yuuxu wooy la ñuy wax ñun dañ koy woy ñun dañ koy woy ñun dañ koy woy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo doon nettali woylu nu mu xóotee mu ne buñ ci sànnee xeer balaa muy laal suuf dina am sabina xarit juróom ñaar fukki nawet dina ko am mu doog laal léegi ñun loolu dañ koy woy encore yàlla nag neen nañ waar nit ñi balaa ñu ñëw foofu di wax di di yuuxu ay wëyil di yuuxu pertange subhaanahu wa taala suñu borom nee na bis boobu yàlla dong mooy buur te mooy buuru dëgg bi amul kenn ku fay buur ku dul moom te mooy arrahman yàlla nee na bis boo xam ne bis bu jafe la ci yéeféer yi ñu bañoon topp yàlla bis bu jafe la ci ñoom yàlla ci beneen teer mu ne yow mën a abuus suñ borom mu ne bis boo xam ne mbokk yi ci àdduna doomu aadama bu amee problème bu amee ay jafe-jafe ñaata baaraamam lay màtt benn baaraam waaye yàlla nee na yowmal qiyaam da ngay gis ku màtt ñaari loxo naan ba gémmi ngi toll nii mu dugal ñaari loxo yi màtt lan lay rëccu moom doomu aadama boobu def loolu ak lan lay wax yaa laytani lam attaxiz yaqul yaa laytani ittaxastu maa rasul sabila su ma xamoon ma jaar ci yoonu Seydina Muhammad waa ji lan lay réccu jaaru woon ci yoonu Muhammad su ma xamoon ma jaar yoon bi nga xam ne moom la saxaaba yi jaaroon moom la Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam jaaroon képp koo xam ne da ngaa nekk fi ci kaw suuf bañ a topp Alquran bañ a topp sunna Seydina Muhammad yowmal qiyaam da ngay dugal sa ñaari loxo ci sa gémmiñ màtt ko looy réccu lan ngay wax su ma xamoon topp yonent bi lan la ci waajoo ji teg yaa waylata lam attaxiz fullaanan xalila i yellante man ay man alkunaa su ma xamoon ma bañ a jàpp ma bañ a topp diw ndax diw sànk na tey am na ñu bëri dañuy sànkaat ku leen topp rek dañ lay sànk yonente bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba muy firi siraatal mustaqim bant la yor daa di koy rëdd daan ne bii mooy yoonu yàlla bu jub bi daa def ay càmbur càmbur càmbur yu ndaw daan na cimb cimb yépp mooy yeneen yoon yi mooy ay ñall te ñall wu ci nekk seytaane moo ngi ci toog di woote yonent bi nee na ku leen topp rek dugg safara kon nag réccoo ngi nii lu tax doomu aadama bi réccu dafa bañoon jaar ci yoonu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu fekkee nag ci lii la ba tey waa ji réccu na dem na ba yowmal qiyaam toppuloon Muhammad keneen a ngi ni koy rëcc koo xam ne dafa bañoon topp yàlla ba dee ñëw fii lan lay rëcc bi bi dee ñëwee bi dee ñëwee mu ne malaaka bàyyi ma ma julli bàyyi ma ma woor tey bàyyi ma ma jëf ma jaamu yàlla ñu ko dégg bi dee ñëwee mu ne yàlla delloo ma àddina ndax ma may may rukkoo ndax may sujjóot ndax ma topp sa santaane sori sa tere delloo ma àddina ma jaamu yàlla ma def lu baax yàlla mu ne ko déedéet wax jooju yaa koy wax rek innaha kalimatun huwa qailuha wax la joo xam ne waa ji moo koy wax rek waaye wóor na ko ne du dellu àdduna wóor na ko ne du dellu àdduna yàlla mu ne wa min waraihim barzaq ila yawmi alqiyama seen kanam bàmmeel yaa nga fa te mu ngi leen di xaar seen kanam mbokk yi bàmmeel yi ñu ngi fa te bàmmeel yi ñu ngi leen di xaar kenn ngi naan ku rëccu keneen a ngi nii kuy rëccu waa ji nga xam ne day ñaan nañ ko delloo àdduna lan lañ koy tont hay haat hay haat wa am naa yustajaabu lahum naka lañ leen di tontal naka lañ leen di nangulee li ñuy demande li ñuy laaj naan lañ leen bàyyi ñu delluwaat àdduna ñu jaamu yàlla naka lañ leen koy nangulee waaroon nañ leen fàttali leen jéem leen a ñaax jéem leen a soññ ñu bañ yàlla waxoon na wa man arada an zikri fa inna lahu maisatan dankan wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama képp koo xam ne da ngaa dummóoy sama téere da ngaa dummóoy sama njub da ngaa dummóoy sama alquran da ngaa sori sama yoon bi yàlla nee na mooy dekk yowma alqiyama dinaa la dekkil di nga dund ci àdduna dund gu xat ba pare yow man xiyaam booy dekki dama lay gumbal nekk am na yoo xam ne dañuy dekk ci àdduna dañuy gumbal duñu am bët dañuy dekk duñu am bët waañu nga dégg muy laaj borom bi subhanahu wa taala qaala rabbi lima hasartani ama faqad kuntu basira yàlla lu tax nga dekkil ma ci alaxira ma gumba te man bi ma nekkee ci àdduna dama doon gis lan la ko yàlla di tont subhanahu wa taala qaala kadalik atatka ayatina fa nasitaha wa kadalika alyawma tunsa wa kadalika najzi man asrafa walam yumin bi ayaati rabbihi wal azabu al axirati asad wa abqa yàlla mu ne bi nga nekk ci àdduna da nga fàtte woon samay santaane li ma doon tere fa nga fëxoon jëm li ma doon son ñu nit ñi di leen ci ñaa pour ñu def ko da nga ko sori woon bañ ko def looloo tax tey fii ci àllaaxira li nga fàtte woon santaane yàlla yi noonu lañ lay fàttee yàlla mu ne nay nii laay fayee képp koo xam ne da ngaa bañ a gëm sama alquran da ngaa weddi sa borom te yàlla nee na maa ngi leen di yëgal ni mbugalum alaxira amul amul luñ koy tolleel ba mu tolloog moom mbokk yi alaxira mbugal gi fa nekk amul luñ koy tolleel ba mu tolloog moom benn borom xam-xam mi ngi nekk li biñ ko waxee kaa ñu proposé la nga nekk premier ministre wala nga nekk benn benn ndombal tànk rek buñ lay fal pour nga dimbali état bi nga koy waxal ak peuple bi mu ne déedéet xam naa ne loolu su ma ci duggee su ma ci duggee naaru jahannam laay moom laay dugg te su ma bañee lii bugal mën na ma cee fekk mu ne waaye ma tànn naaru àdduna pour yàlla musal ma ci naaru jahannam nekk ñu ñu ndaw ndawaan yi ñuy daj yu ndaw la par rapport ak mbugalu yàlla subhanahu wa taala moo tax mu ne lu doy waar la lu yéeme la ndax ay doomu aadama yooyu ni yoo xam ne jamaaw falam yaakulu dajale nañ ba mu dal waaye li ñuy dajale lekk ñu togg nañ ba mu ñor li ñu togg buñ ci jotee lekk tuuti la am na ñoo xam ne sax jotuñ cee lekk ñoom ñeneen a ngi ni ñoo xam ne zaraawu falam yaxsudu góob nañ bay nañ waaye góobuñu nawet bi taw na ñu dem ji di xaar mu sax ba ñu ñëwaat góob yàlla mu ne falam yaxsadu góobuñu de am na ku dem marché togg añ ba mu ñor waroon taaj añ boobu keroog kenn añu ko ñeneen a ngi nii wa banaw walam yaskunu tabax ay étage ba ci kaw bay waaj a toxu yàlla mu ne walam yaskunu dëkkuñu ca de wala waa ji bi mu ñëwee dëkk ay fan la fi am yàlla nee na ma daal di koy génn kër ñeneen a ngi nii ndeysaan te bés kee ngi waaj a ñëw mbokk yi am na ñuy dem jënd yére ñaw ci ba mu fees dell fere ci yàlla nee na walam yalbasu duñ ko sol de am na ñoo xam ne dinañ sol yàlla mu ne dinañ leen ko simmil duñ ko simmil seen bopp waaw ñu njëkk ñi dañoo togg lekkuñu deuxième groupe dañoo bay góobuñu ñetteelu groupe dañoo tabax dëkkiwuñu ñeenteelu groupe dañoo sol ay yére dañoo dem jënd ay yére dem ñewi ko waaye soluñu ko ñun ci ban lañ bokk ñun ci ban lañ bokk jot nañoo sol jot nañoo añ jot nañoo góob est-ce que dinañ ci doyal déedéet lañ ñu dem alaxira moo tax mu ne yàlla mu ne maa ngi leen di wax wax joo xam ne wax ju wér la wax ji ma tàmbale woon nga xam ne doo gis mukk tey ci dëkk bi nga dem benn benn benn parlement wala benn assemblée nationale dégg ñu ne super mi nañu dee lu tax dee yàlla nee na mu ngi nii de ma leen di wax kullu nafsin kullu nafsin zaiqatul mawt yàlla mu ne bépp bakkan rek boo xam ne mas nga dund di nga mas dee maa ngi leen di yëgal nag yéen doomu aadama yi seen liggéey bi ngeen di liggéey fii ci àdduna ñu ngi leen koy faye àllaaxira nekk ñun ñëpp dañ ñoo pointé ci àdduna dañ ñoo pointé dañoo dañoo ñëw àdduna di journalier yi am na ñu jot a embauché am na ñoo xam ne dañ leen a pointé rek am na ñoo xam ne ay journalier lañ fay bi kañ la innama tuwaffuna ujurakum yawma alqiyam yàlla ne yawma alqiyam laa leen di faye mu ne képp koo xam ne ci yéen faman zuhziha ani naar képp koo xam ne toril nañ ko safara wa udxila aljanna ñu digal ko ajana kooku de faqat faaz kooku texe na mbokk yéen taay nga dégg ku ne diw texe na texe du ci àdduna xam ngeen texe fan la nekk mooy yowmal qiyam yàlla ubbi buntu safara ubbi buntu àjjana ñu teg blanche yi nit ñi taxaw fa maaman utiye kitaabahu bi yaminihi foofu la mbir yi nekk ñu daal koy dugal àjjana kooku mun na yooxu daan ne gañe naa kooku mun na yooxu daan ne man day texe waaye teg dugaguñu àjjana rek nañ xam ne texe bi texe moo ngi dug mooy dugg àjjana texe foofu la nekk wala yàlla loolu wax de képp koo xam ne soril nañ la safara daan lay dugal aljanna yàlla mu ne faqat faaza kooku texe na xoolal saxaaba bu demoon guerre ñu jël benn fet fet ci ba mu daj daan koy dóor ci kut mu jàpp ci flèche bi daan ne fuztu wa rabbul kaaba texe naa yow buñ buñ la ko defoon léegi yow ma xalaat day bu bon lañ koy mu am lu mu wax fuztu wa rabbul kaaba texe naa parce que mission bi lu gën a rëy ci kaw suuf mooy dugg àjjana saxaaba yi àjjana yàlla subhaanahu wa taala day wax àjjana di wax safara ñoom ñu ragal safara bu baax bëgg àjjana ñun tey àjjana daanaka safara moo ñu gënal àjjana xoolal rek Sénégal ngay gis ci jamono ju sedd benn waaye ngi ni boo xam ne nangu naa yenu pañe jën te pañe jën bi dañ ko glacé mu yenu ko ci kawam muy siit ci kawam mu dem yenu pañe bi ay mètre ñu fay ko fukki dërëm waaye boo ko neen ndax mu sedd ngi nii jàppal julli naafki la ci guddi gi mun a dafa sedd saaba yi ñoom bu guddi jotoon bu ñu tiimee seen lal dañuy raay lal bi naan ko lalaa nooy de waaye àjjana am na fa lal yu la gën a nooy ayna nahnu min haula allahu akbar te loolu mbokk yi ñun ñëpp dañ ciy jaar de ñun ñi fi yëpp dañ ciy jaar incha allah ñeenteelu malaaka daal di ñëw moom tamit ak um lay wax ndax sa dund gi dafa am lu mu ci yoroon lan la lay wax ya abdallah tuftu laka almashariq walmagharib falam ajab lak falam ajib laka nafsatan tatanafasu biha yow doomu aadama yow jaamu yàlla bi wër naa penku ak sow gisatuma fi noyyi boo xam ne mën nga mën nga ko mën nga ko noyyi dootoon noyyeeti gisatuma fi loo fi mën a noyyi su la malaaka boobu waxee loolu deltu ginnaaw ñaata malaaka ñoo wax ak yow ñeent kilifa gu mag gi nag muy seen chef muy malakal mawt mu fas yéene ñëw nag léegi jël ruu gi ndénkaane gi ko yàlla dénkoon mu delloo ko borom bi subhaanahu wa taala léegi nag malaakal mawtu mooy préparé jël ci sa ruux yow doomu aadama jamono jooju nga xam ne al kullu yan fag ñëppay dem laa rujua ilal bayt amatoo dootoo dellu kër ga fekk hôpital nga nekkoon dootoo dellu kër ga bu dee da ngaa tukki woon dootoo dellu foo mënta nekk laa rujua dootoo dellu laa rujua ilal amal dootoo dellu ci liggéey ba wala ilal asdiqa dootoo dem ca xarit ya innama rujuu ila allahi wahidi dayyan kan ngay delluwaat borom bi subhanahu wa taala moom la yàlla naan lan moo tere woon bi ma yabalee samay yonent ñu ñëw fekk seen mbokk mii di dee ñu xëcc ruu gi ba ci put yi ba muy xor-xori lan moo leen tere woon yéen ngeen jàpp ci ne du dee fii nag la yàlla samp ndëndëm fii la yàlla attaqué xalifa général yi fii la woo xalifa yi fii la woo wali yi fii la woo yenent yi fii la woo sëriñ yi fii la woo médecin yi fii la woo ñëpp fii la woo tout le monde yàlla nee na ku mën dara rek saa yu ma xëccee sa waay ba ruugi egg ci dënd baat bi ñëwal intervenir ñëwal nga seet ndax yow am nga loo ci mën te yàlla subhanahu wa taala ku mu xëcc sëru ba ci sa dëndi baat ñetti fan rek nga gis gaa yi tànt sa buntu kër ñu xam ne yow moom yàlla jaaral na ci yow yoonam yàlla nee na jamono jooju ma xëccee ruugi ba ci dënd baat yi yéen yéen a ngi gis wa antum hiina idin tanzuruun yéen yéen a ngi gis waa jaa ngi dee wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun man yàlla maa leen ko gën a jege waaye gisu leen lan moo leen tere woon ngeen jàpp ci delloo si waat waa yi ci àdduna ne du dee yëpp malakal mawtu moom mi nga xam ne nag léegi moom mooy jël si ruuxu doomu aadama boobu moom tamit ginnaaw ba malaka yee waxee ak doomu aadama boobu malakal mawt tamit am na lu muy wax ak doomu aadama bi malakal mawt dina ne doomu aadama yabnu aadam ayna quwatuk yow doomu aadama ana sa doole ji nga doon jaay ci àdduna ba lépp loo xam ne yàlla subhanahu wa taala santoon na la ko nga bañ ko ana sa doole jooju nga doon jaay doon nga wax ne bi nga nekkee ci àdduna mbërum làmb nga woon kenn mënu laa laalloo suuf doon nga wax ne boxeur nga koo dajal daaneel ko doon nga wax doon nga wax takkoon nga ay sénti bi bare bari léegi rek sa doole jooju nga doon jaay ay na quwatuka ana sa doole ji doomu aadama ne pat malaaka bi daal di tontuwaat ne ko maa àdd afak dara gënu laa lot dara gënu laa yembare ndaxte yaa ngi nii ne lëcc ca loolu dee sa benn cër yëngatoo dootu yëngatu yaa ngi nii di waaj a dee te mënuloo sa bopp dara daal di koy waa laajaat ba tey yeneen laaj ay na basaruka malakal mawt mooy wax ak doomu aadama de ayna basaruk ana say bët lii la bi nga nekkee ci àdduna ana lan moo la tere woon nga dégg santaane yàlla yi nga gis ko lan moo la tere woon bi nga ko gisee nga jëfe ko xanaa yow doo gis ayna basaruk ana sa bët doomu aadama daan ne pat mu ne ko li ma laa tara lu tax doo gis lan moo la tere woon nga gis nga xam ne bés bii dina ñëw nga waajal ko waaye mbokk yi ba tey doomu aadama malakal mawt di yem ak moom foofu dina ko ne ay na samak ana say nopp lan moo la tere woon nga dégg li yàlla doon wax lan moo la ko tere woon dégg ana say nopp doomu aadama ne pat malakal mawt ne ko maa asmaak dara gënu laa tëx dina ko laajaat ay na riihu ko ana sa xet doon nga sangu soo yeewoo doon nga sangu ñetti yoon doon nga sangu suba sangu midi sangu ngoon doon nga diw diw yu baree bari doon nga puuru ci ay parfum ay butéeli butéeli waaye sa xet boobu nga doon xeeñ anamu tey ay na riixuk doomu aadama ne pat malakal mooti ne ko maa xayyaraka lan moo la xeeñ loo lan moo la soppi te yaa ngi ni tëdd fii di xeeñ di xasaw wala doomu aadama rek xanaa ndeke doomu aadama bu dee day xasaw ba buñ koy sang sax foog ñu uti kaafoo foog ñu uti misk foog ñu sotti ko ci ndox mi di ko ko sang ñaari minute rek buñ jëlul glace teg sa biir bi léegi nga néew yi foog ñu dem uti glace wala ñëbu la fu am climatiseur suñ ko deful rek léegi musiba am moo tax malakal mawti na ko ayna riihuk ana sa xet maa xayaraka la moo la soppi waaye du yem ak moom foofu malakal mawti na ko waat ayna sawtuk ana sa kàddu sa làmmiñ bu rëy bi nga doon yuuxu anamu anamu mbokk yi mën ngeen dem ay bàmmeel kan mos musa dem armeel armeel yi boo ñëwee da ngay dégg armeel yi ne salaw lan ngay dégg ay picc rek yuy sab ñëpp a ngi ne teg te pourtant noddukat yaa ngi fa tëdd woykat yaa ngi fa borom làmmiñ ñi borom baat yu kawe yëpp a ngi foofu tëdd ñëpp ne teg lu tax kenn waxatul moo tax benn waaye buñ doon wax dafa dof dafa ñëw ba tiim bàmmeel yi tukulóor la nag mu ne ñaw dag day wadi mu ne ñaw dag day wadi mu ne ñaw mu si baam na de noppi ngeen de acca yuuxu leen gis nga foofu ku fa dugg rek daan ne yàlla benn kàddoom la am bu ne silence foofu jeex na ba àdduna bi jeex foofu ku fa dugg dootoo waxati allahu akbar doomu aadama malakal mawti ne ko ayna sawtuka ana sa kàddu doon nga nekk ci àdduna nga ni yow woykat nga woon doon woy acca ana sa kàddu googu nag tey doomu adama ne fàtt noppi mu ne ko maa askatak lan moo la noppiloo lan moo la noppiloo waaye malakal mawtu mbokk julit yi du yem ak doomu adama rek ci laaj yooyu dina ko laaj ba tey ayna maaluk ana sa alal ana sa alal alal ji nga doon tiitaroo alal ji nga doon jaay di ci yuuxu yuuxu yu méttee métti ba alal ji tere laa jaamu yàlla ana alal jooju ah doomu aadama dina pat daa di noppi borom alal yi ak borom xaalis yi borom xaalis yi mooy borom alal yi ak borom doole yi bu ñu dee ñoom am na lu ñuy jooyee borom alal bu dee yowmal qisaam xam ngeen borom alal nan lay jooyee mbokk yi maa arna anni maaliya ay waay man ndeke sama alal jëriñu ma borom doole yi ñoom xalaka anni sultaani sama nguur ji moom alak ñoom noonu la ñuy jooye ñee naan maar naa anni maaliya ñi naan xalaka anni sultaaniya ba coow li kenn dootul dégg rek yàlla daan ne xuzu jàpp leen fa xullu yeewu leen lu ci yem de summal jahima sallu dugal leen safara jahim mel ne malaaka yi dañoo jàpp bëgg yëpp rek yàlla ne taxaw leen des na des na summa fi silsilatin summa fi silsilatin zaruha sabuna zira seena leen ko seen boo xam ne guddaay bi juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki mètre la juróom-ñaar fukki mètre mbokk yi te yàlla ni muy takkee yàlla mu ne wala kenn takk ci àdduna yàllaa ngi wax surtu fajri wala yusiqu wasaaqahu ahad yàlla ne ni may takkee kenn du ko takkee wala yusiqu wasaaqahu ahad yàlla ne ni may takkee kenn du ko takkee doomu aadama bu yàlla di malaaka yàlla di sant nañ ko yeew xam nga nu muy mel mi ngi mel ne kenn ku soloon sa chemise longuement nga dem ba bëgg a liggéey rek wala bëgg a def dara nga bëgg a lem lem chemise bi malaaka yi fii la ñuy jàpp sa catu baaraam yi lem mu damm ñu lem lem lem lem yax yi muy damm ba fii ñu lem droite gauche bi lem tànk yi ñaar yëpp boole ñaari tànk yeeg ñaar loxo yeew dugal bumbi sa gémmiñ jaare ko sa ginnaaw noonu lañ koy def moo la yàlla mu ne wala yusiqu wasaaqahu ahad ni may takkee kenn du takke noonu yàlla yemul ci takk rek de su ma fii silsilatin la waxoon ah dafa mel ne malaaka yi subhaanahu wa taala malaaka yi seen bopp li mbir mi metti dañoo tiit ñoom daan na yàlla lii lu ko waral yàlla mu ne innahu kaana laa yuminu billahi al azim gëmul woon yàlla mu màgg ni looloo tax tey ñu koy def nii innahu kaana laa yuminu billahi al azim yemul ci noonu waaye waaye yaxuddu ala taamil miskin daawul leel miskin yi ñam fa laysa lahu lyawma haahuna hamim tey du fi am xarit ndax kim fi waroon xaritool kookoo koy def nii kon tey du fi am xarit mbokk yi nañ leen jéem yàlla nekk suñu xarit balaa ñuy dem alaxira ku dem alaxira amoo fa xarit ku dul yàlla alku nga ku wàcc alaxira rek amoo fa yàlla muy sa xarit fexe woon ba ba nga nekkee ci àdduna nga xaritoog yàlla gis nga moo tax bilaal mu ne gadan gadan alqal ahibba muhammadun wa sahba suba ma dajeeg soppe yi muhammad ak sahaaba yi ndeke ñun dañoo war a nekk fii mais dañoo war a nekk war a fexe ba nekk ay soppe yàlla ay soppe yàlla ahbabullah soppe yàlla loolu lañu war a góorgóoru nekk su ko defee ci jamono jooju mbokk jullit yi nga xam ne malaakal mawt wax naag doomu aadama boobu ba pare léegi nag rocc na ruux gi ba war ko yóbbu yàlla subhanahu wa taala mu des nag léegi mu bàyyi néew bi mu ne lëcc ci lal bi néew néew amatoo tur de léegi benn tur nga am mooy néew néew mooy ko nit koo xam ni doon dund mi ngi mel ne courant nit dee dee mi ngi mel ni rek lampe nit mi ngi mel ne lampe boo contagué mu tàkk boo fayee mu courant ba dem nit noonu la mel nit bu amee ruu mu ngi dund bu ñu dundee ruu gi dee na dee nag li koy waral mooy yaram doomu aadama ginnaaw ba ci yàlla dugalee ruu yaram bi am na benn degré bu muy toll ci métit ci métit wala ci coono wala ci jafe-jafe dootu ko mun a muñ ruu bi dootu ko mun a muñ loolu rek ruu bi day daw ruu bi dawee génn nit ki dee mi ngi mel ne oto bu mbëkk nit doole bi nga ko mbëkkee yaramu nit ki dootul mun a muñ métitu ruu bi dootul mun a muñ métit bi yaram bi nekkee ruu bi day daw su ko defee rek waa ji dee dee loolu rek la mbir mu mbir mu mbir mu sew la mbir mu gaaw la nga gis nit kuy tëdd ku tëdd xamoon nga ko démb ak barki démb mu ngi nii taxaw nga ñëw tiim ko woo ba sonn mu tëdd pourtant bopp bi mi ngi fa bët yaa ngi fi nopp yaa ngi fi tànk yaa ngi fi léppam fi waaye yëngatuwut nga yëngal mu ne nii rek nga xëcc xëcc mu tàll rek ñu ñëpp yuuxu mu tëdd rek su ko defee ci jamono jooju ñu war a ñëw génn néew bi fan lañ koy yóbbu morgue fan la morgue ba nekk ca jàkka ji waaye néew bi buñ ko jëlee ci kër gi di ko yóbbu moom day wax ak waa kër gi balaa muy génn kër gi nekk ñun bis bu nekk suñu mbokk yi dee ñu ngi wax ak ñun waaye ñun dégguñu suñ ñëwee jëli jàgg ba ca jàkka ja ñëw dugal ci mo néew bi di ko génne kër gi allahu akbar xala waa joo xam ne moo tabaxoon benn satur ba moo tabaxoon këram takk jabar